رمضان رمضان رمضان sama ngëm dafay dund أعوذ بالله mbokk mi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi baaxoo ànd ak yow ci naafilay wéer wii di dëxlu ramadan al mubarak ñu toll ci guddi juróom-ñeenteel ga ñu ni guddi juróom-ñeenteel ga ku ci julli ñeenti rakka rakka bu nekk nga jàng ci fatiha benn yoon jàng ci xul wallahu benn yoon jàng ci tabat yada ñetti yoon nee na ko def loolu des na ko bindal tuyaaba ju tol ni muñkati adduna bi yépp ak santkat yi dana mel ni wecc na ab kaamil des na nungu ak julleem ak kooram des na ko ci bindal tuyaaba ju tol ni ku jaamu yàlla juróom-ñaar fukki at yoo xam ne da koo yendoo woor fanaanee naafila def na digal malaaka yiy far ay bàkkaar ñuy far ay bàkkaaram di ko bindal ay tuyaaba ba bis pénc ba ba bis ba dina ko dimbali dina ko taxaw ba kenn du ko mën a te dana ko musal ci seytaane ak njàqare yépp te bu bis pénc ba dees na ko booleeg ñi nga xamante ni duñu gis lu leen di ragalloo ba lu leen di jàqloo dees na ko ubbil juróom-ñetti bunti àjjana yépp mu dugg ca bu ko neex te kenn du ko isaab kon loolu mooy guddig juróom-ñeenteel gi yàlla nañu sunu borom may xel mu set mu sell muñ ko mën a matale bi jaa'i dëhru ramadan al mubarak wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu